ami internet euh, univers info tv ak euh, Dakar plus ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen waay euh, tey nag dañu am un entretien spécial ak koo xamante ni Sénégal dañuy xaar tout le temps ay sorties am ngeen gëj ko gis trop nag ci li nga xam moom mooy écran yi donc tey ñu ñëw seet ko fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy actualité mais surtout actualité politique waaye te ci li nga xamante ni ci lay yëngu ndax ñu bari yàgg na leen fajal ay seeni soxla di leen taxawu si seen i eh, jafe-jafe donc docteur Diallo la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom nag waxtaan bu yaatu waaye bala ñoo sori dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen mbokk internet yi namanti koog yéen ñu soog di tàmbali li nga xam moom mooy waxtaan bi docteur ñu ngi lay nuyu di la ziar. di leen fay mon frère. di leen naan bienvenue chez vous di équipe eh, Univers Info ak Dakar Plus. Mm-hmm. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين alhamdulilah jërëjëf sëñ Touba maa ngi sant yàlla di sant waajur yi di sant sëñ Touba di sant euh, l'équipe de du bon tout le cabinet et tout le personnel du cabinet Ndiadéri quoi ñi nga xam ne ñoom mooy jàppale ci liggéey bi. di nuyu téléspectateurs yi di baalu àq ci weeru koor bi di leen baal àq. Mm-hmm. ñu lay euh, baal aussi di la euh, ñaan rek nga baal ñu àq aussi parce que tamit sonal na la trop depuis boobu ñu ngi euh, malgré sa emploi du temps di mu chargé ñu jéem a fexe ba am ak yow jotaay ñu ngi la koy jégalu bu baax mais koor gi nag nga koy dundee docteur. kon du loolu docteur. ban feebar nga am. dara. <laughs> amoo benn raison pour expliquer ñu lan moo tax doo woor. non je je jeûne pas c'est tout j'ai pas envie. <laughs> lii de mosuma gis. ah je jeûne pas de. mais yow xam nga lan mooy quintessence su koor le jeûne. waaw ah, xam naa ne ponk l'islam la c'est une obligation. Hmm. et une obligation pourquoi yow mënoo euh, def euh, obligation boobu. defu c'est tout. tout en sachant que après tout temps tu vas rendre compte. pour euh, pour l'enfer. Oui. je m'en fous de man enfer yëngalu ma man <laughs> enfer bu ma séenee daw. enfer c'est une comme toi tu es une man maa gën enfer maa gën paradis man paradis moom war a topp. mais léegi qu'est-ce que tu comptes faire pour remplacer li nga xam moom mooy. waaw voilà benn bonne question damay fay. lan ngay fay. damay lexal euh, soixante miskin soixante mille par jour. soixante mille par jour. plus même. ngay jox gars yi. wax dëgg yàlla weeru koor moom sa kër wala da génn leen ko jox. non xam naa ni ma koy defee comme nu may génnee zakar rek xam naa ni may génnee sama sama sama sama soixante mille su ma neexoon sax def ko trente mille ah. d' accord trente mille mun na cinq cent mun na mun na lexal soixante miskin. su ma neexoon aussi daf ko soixante pain ah. soixante pain <laughs> lexal na miskin ah. mais je donne plus les soixante mille moom dama koy calculer wax dëgg yàlla je donne hormis ce que j'ai fait. waaw franchement. Mm. je beaucoup service. waaw damay dundilaate damay joxe ay ndogu damay damay aider des inconnus damay xool sama répertoire sax jigéen nit ñi faalewuma ko am ko amut di ñu yónni yëf di ñu xam sax numéro bi la yónni parce que sama numéro directeur ñu bëri amuñu ko. noonu daal nga koy doxal bon man su ma wooree je m'énerve trop quoi. damay mer mun naa ci fase sama jabar mun naa ci saag sama yaay mun naa ci def lu ne ñemewu ma xiif quoi. da bi waaw. kon boo ci naree saag ñu commencé wóoruma le vendredi j'ai essayé ma dem fan ay Touba ma mi je vais m'éloigner de la maison <clears throat> ma sàncaale foofu sama benn kër bu bees. Mhm. ma fanaan fa ma woor bon je je me suis julli ma sax fajar wax dëgg yàlla du ma sax fen mhm. j'ai mangé à quatre heures je me suis couché après mais midi j'étais fatigué déjà non après non j'étais climatisé après ma génn taal sama oto si climatisé ma dem ci juma am na waa ji trois trois S waa c'est mhm. na fa juma ci ci télé bi ma dem julli fa bon quel c'est quelqu'un qui m'a dit moom moo ko tabax ah ma dem julli foofu après ma continuer sama beneen kër parce que dama may pigeon ma dem xont pigeon yi bon tout ça j'ai supporté y a pas de problème ma ne damay xaar ba 18 heures ma ñibbi Dakar comme ça heure bi may agré fekk ndogu <laughs> jot comme ça duma mën a saaga kenn quoi mais ni ma yegg see buntu kër gi ak ni ma saaga waa kër gi mooy benn. kan nga ci ñoom ñëpp. sama jabar sama sœur yi sama bel sœur yi parce que mois j'habitais d'habitude j'habitais seul man ah, du ma nangu kenn dugg sama kër ku sama jabar ak sama doom mais actuellement euh, je suis un peu surpeuplé il ma sœur il y ma belle-sœur aussi. il aussi ma nièce. lu ñu def ba nga saaga defuñ ma dara. dugg rek càq leen dem ngeen sa salon bi ah du yaa ma laaj man je sa pas mentir c'est ça mon problème ma saaga leen gën leen sama salon bi voilà quoi. te dama te je m'étais juré que su ma duggee. sama néeg laa jëm il ne reste que trente minutes. je vais m'enfermer <laughs> xam nga ba ndogu mais j'ai pas pu. ndeysaan après ñoom ils ont mal coupé leur jeûne. Oh. guddi gi yëpp ku nekk dugg néegam xam nga. j'ai eu honte quoi. bi ma si koor rek après ma tëdd nelaw la laa ma dem xëy mais j'étais pas bien au bureau. franchement xam nga samedi lay liggéey dimanche ak lundi. Mm-hmm. donc ma dem samedi bi liggéey. mais bi ma ñëwaatee je avec des neexala. Ah. Ah, waaw ma ne ma wooraat. yow yow kay baal nañ la. sacré docteur Diallo gis ngeen ni ñu campé li nga xam moom mooy décor bi. man euh, depuis deux mille seize wóoru oh. allah donc euh, docteur Diallo la ñu toogal moom la ñu invité ku nekk xam na ni moom moom euh, il est spécial en son genre mais. <laughs> mais xaadim jumlaa woo kati travel moo ma yóbbu mag tout le temps umra yi moo ma moom c'est la meilleure agence moom pèlerinage moom aj moom. Hmm. bu dee wax dëgg rek Sénégal. bu paree na fay publicité waaw waaw moom moom moo war a fay sax man ma fay leen. <laughs> d'accord waaw moo woo ko téléphone ma ne ko je veux bëgg a euh, jam wari ji mag mu ne tey ci guddi nañu dem ma ne ko yaa soof <laughs> waaw. macha allah man mer nag. Ah, macha ma ne ko léegi man si si je ma mel ni man man vingt personnes la ma fay vingt billets est-ce que nga ma defal organiser léegi léegi benn umra. mu ne mais tey lañu dem maa ngi nii di remplir kii yi tey ci ngoon c'est c'est pas possible et comme moom daf ma doy ci lépp agence am moo ma doy franchement hôtel yi ñuy wàcc et puis moom dafa xam yëf yi tu es à l'aise toma dem ci keneen. d'accord mënatoo dem ci. may xaar moom vendredi suba lay ñëwaat. après. mën naa am 15 jours dañuy ma jom tuuti ma dama wari makk. incha allah yal yàlla def loolu. mais docteur euh, tey waxtaan bi dañ koy tàmbalee ak euh, euh, question d' actualité muy mbirum Ousmane Sonko. actualité wax nañ ko ci koor gi déjà. waaw d'accord mais actualité politique bi euh, dañ ciy waxtaanee euh, mbirum Ousmane Sonko ak ki nga xam moom mooy Mame Mbaye euh, donc tey gis nga ate bi nga xamante ni àtte nañ ko ñu daal di koy amende plus de presque deux cent deux cent. deux cent ah, millions deux cent millions la deux cent millions de francs CFA léegi yow d' abord bala ñoo ñëw ci fayal geeg yooyu noonu atte bi nga xamante ni atte nañ euh, euh, procès diffamation entre Ousmane Sonko ak Mame Mbaye ban jugement nga am papa. man damaa xam droit. Mhm. damaa jàng droit. damaa xam sax luy juge. Mhm. damaa xam luy procureur. Mhm. damaa xam luy tribunal sax lu tribunal tribunal damaa xamul ci. mais euh, est-ce que atte bi jàppoon nga ni. niñ ko man xaw ma lu may xamee atte fekke xaw mais mais ma daaneel. Euh, ndax jàppoon nga ni yow euh, dinañ ko mën a daan daan bu toll nii ci li nga xamante ni moom mooy mbirum diffamation bu dee damay wax dëgg man dama ne dañ koy bu dee kay diffamation mën na ko te dem élection hmm. pour man li ma li ma li ma li ma foogoon mooy dañ koy jox toor ba ba tëj ko mu bañ a dem élection ah man c'est au contraire le résultat est satisfaisant vraiment Macky il faut le saluer ah bu dee kay Macky moo yor leng yi mooy buum di buum yi ci justice bi Ça, il faut le saluer parce qu'il a apaisé, quoi. Franchement, là, il faut, il Pour lan moo tax mu apaisé. kooku wax naa ko ci yeneen émission yi. Ah, mais wax ko jàpp Sonko. Mhm. mais c'est ça c'est le pays. Sonko xale moom la ñu gëm. lu yàlla def la. kenn mënu ko dindi. man j'ai jamais aimé la politique. Mhm. mais Sonko ci biir xol bi la nekk. yow da nga bëgg Sonko dama ko bëgg militant non man luy militant man damaa xam sax nu ñuy militant yi ci parti dama ko bëgg. comme Macky Sall aussi je l'aime mm-hmm. comme Macky Sall je l'aime bien. Mm-hmm. man Abdou Diouf je mm-hmm. plus que j'aimais Abdoulaye Wade mais aimé personnage bi waxuma ci politique waxuma ci gérer la cité mais bu ñu tegoon Abdou Diouf teg la Wade Abdou Diouf moo ma gën je l'aimais ce gars il était sérieux poli posé il parlait j'aimais son français voilà. d'accord ma neexoon quoi. mais euh, daan yi nga xam ne daan nañ ko nee nañ du ko teree. nekk li nga xamante ni Euh, dañu ko d'accord dañu ko wax ni que ni du mën a euh, dina man a bokk ci li nga xam moom mooy euh, élection présidentielle yi ñu jëm heureusement plus de peu que de mal mais fay gi nga xamante ni moom la war a fay deux cent millions. ko na ñëw ma nga engagement. moom na ñëw. na ñëw ne ma fayal ma. fayal ko cash deux cent millions c'est <laughs> ma xam xam nañ <laughs> xaritu <laughs> milliardaire lañ toogal yàlla xam leen de l'argent chez moi. barke alquran deux cent millions c'est pas de l'argent pour moi. billahi wallahi taala ñi ma xam xam nañ ko. Mm-hmm. nan nga def ba. sama trois mois rek dépassé na deux cent millions. koppar yooyu foo ko jëlee bi nag bii bii <laughs> de passage maa ngi sant euh, monsieur Diagne bi ma ko may. il est en Italie. Mm. ma moo may montre bi. ça fait un bi mu ko commandé Espagne ñëwaat na fi sax màggal mais montre bi ñëwuloon montre bi mu ngi ñëw euh, il y deux semaines Pape Diouf moo moo njëkk a may montre Pape Diouf chanteur mm. dafa fekk ma yor sama collection 237 montres ma bàyyi sol montre yooyu mu ne ma tekki sa montre nga sol ma bi montre Pape Diouf boobu nag deux heures mooy dix la sol naa ko un an deux heures mooy dix rek mosul changé léegi pap pap changé naa sa montre bi léegi montre bi laa yor bii moom am na heure. parce que bii moo am heure. mais montre pap bi montre bu cher la. d'accord waaw koppar yooyu geste bi dafa neex. koppar yooyu fan nga ko jëlee docteur ba war a mën a fayal Ousmane Sonko deux cent mille. je travaille moi. man j'ai travaillé à l'extérieur avant de venir au Sénégal. Mm. et je connais comment on gagne de l'argent te man damay sàng nit ñi di am alal ah, bul fàtte loolu. te duma ku ñàkk fayda je suis un bon musulman un bon musulman du pauvre xol bu rafet laa yor je ne mens pas duma tas yaakaar xam naa yàlla nu mu tudd xam naa tuur bi ma koy wooy ma uyu ma xam naa garab yooyu sangu nga am alal xam naa secret boo yuri nga am alal man damaa judd rek fekk ay millions je suis le fils de Doriel Diallo moi. Mhm. ça c'est sérieux. ñi ma xam xam nañ li ma am extérieur. Mhm. est-ce que xam nga man je je devais même être l'homme le plus riche au monde bu ma état bi jàppale woon parce que je suis le seul au monde qui traite l'hépatite B. yow hépatite nga koy traité. je le seul qui soigne waxuma sax traité qui soigne l'hépatite B c'est je suis le seul au monde qui soigne waxuma traité qui soigne le diabète. je suis le seul au monde qui soigne le cœur avec cinquante mille francs quatre semaine dootoo opère je suis le seul au monde qui qui soigne waxuma traité encore prostate. mooy prostate buy sawlo bu bëri mooy buy tëj mooy bu tàng mooy bu bu metti bi mooy bu am góom bi en quatre semaines te boo demee feneen ñu def la sonde wala opération je suis le seul au monde qui soigne waxuma traité de arthrose je suis le seul au monde qui soigne waxuma traité hernie discale je suis le seul au monde qui soigne waxuma traité encore fibrome sans opération je suis le seul au monde qui soigne waxuma traité colopathie qu'elle soit fonctionne qu'il soit déedéet ah. quel faj bët hmm. mënuma faj bëñ hmm. mënuma faj nopp hmm. donc je soigne pas tout d'accord ñaata maladie ngay soigné kon mënuma faj palu ñaata mënuma faj rein donc c'est pas tout mais li ma mën moom. Mhm. maa ci ndaanaan. may yàlla la à peu ñaata maladie. y en a plein. yëpp dama koy faj. coxarthrose arthrose arthrite polyarthrite rhumatoïde rhumatisme nerf sciatique hernie discale waaw. mais loolu da ko jàng wal da xëy rek. mu dugg ci xamul sax luy siti te siti mooy indi yii yëpp. Hmm. boo mënul faj nag ndey ji mënoo fay mënoo faj leneen lii. loolu da nga ko jàng. colopathie bi ñoom mënuñ ko faj te ku mënul faj colopathie doo mën a faj leneen parce que 70 pour cent des maladies sont dues au ventre nit lu la dal pour cent ci biir bi la 30 pour cent ci deret bi la deret bi germe bi nekk ci cité bi la. drépano SS je suis le seul au monde qui soigne ça drépano AS je suis le seul d' may montre bi doom laa faj Masser Diagne doom laa faj drépano SS moom bu amuloon xaalis doom boobu dee na bu yàgg. Hmm. mais bi ma xamee la am jàmm. six mois laa faj doomam. mu wér six mois xaw ma mois. kon ci sonnoon na ci doomam boobu. boo amuloon xaalis ma doom ji deewoon na bu yàgg. man su ma riche la kuy riche. Oh, c'est malheureux que je suis Sénégal et puis l'État jàppale wu ma. mais est-ce que man je suis produit man je suis plus que que du pétrole dans un pays. je suis plus que le gaz dans un pays. je les ai appelés maintes une fois woo leen ma taaj leen ma. jéem leen gestu ak xam aussi li ma yàlla may l'Occident va venir les États-Unis vont venir il y a des choses que je pas dire. entre états man xam nga lan laa bëgg xam. xam-xam boobu nga xamante ni am nga ko da nga xëy rek mu nekk ci yow wala da nga dem gëstu ji ko wala loolu donn la wala lan la. exactement donn man gëwuma ko donn xam-xam. kon xam bi fu mu jógee docteur. dama jàng gëstu ah. et puis aussi yàlla may ma ci wax dëgg yàlla. man bind laa doon def maraboutage ma xëy bés bàyyi ko na lii dafa xaram parce que fay ma ma ñaanal la mel ni man maa yàlla ku mën asraar la imbécile yi sax xam nañ ko parce que. ñi ñi ñi ba liggéey tout temps. moo lay liggéey moo Sénégal yëpp xam nañ ko. est que xam dégg dëgg la. man dañuy dem sax ba jël sama image def ma nuy naa la trouvé nuy <laughs> lu ne def nañ ma ko léegi dañoo nopp dañoo noppali ko rek. yow ñan nga jàpp lay liggéey yow. vaurier la man fu ma ñëw liggéeykat dem parce que j'ai la vérité. wa qul jaa al haqq wa zahaqa al baadil inna al baadila kaana zahuuqan mardi 22 novembre 2016 bi ma ñëwee Ziguinchor dama ne tuur yi ak xamba yi c'est fini te noonu la amee de <laughs> gën nga dëgg nit ñi di naan dañuy dem Ziguinchor faju ji wala sangu ji ñoom ñi doon sangal nit ñi sax ci man lañ doon indee nit ñi maa dàq sang cat fii ci àdduna maa dàq sang alal fii maa dàq désenvoûté fii yow may désenvoûté nit ñi dama jàpp loolu daf mun nekk. mais li ñu doon liggéey kon jàpp man kenn mënu maa jàpp. te xam ko man même mes propres de même père même mère dañ may liggéey. barke barke alquran barke alquran mes pires ennemis sont de même père même ñi ma xam xam nañ ko. loolu la ma yàlla nattoo man sama néegu yaay te santé naa ko yàlla. billahi man natt yu garaaw laa. l' accident du avril man que c' est des gens qui voulaient me tuer. da nga ko gisoon ren je <coughs> xamoon naa ne daal dinaa def trois accidents graves j'attendais le troisième. oto boobu nag moom Range Rover bi je te raconter l'histoire <coughs> dama benn xarit bu tudd Mamadou mu Di Idia Wokam c'est mon meilleur ami ñoo fowandoo mhm. ma ne ko kaay ñu dem ma wan sama kër tuuba mhm. ñu jóge fi un jeudi soir bi ñu taalee Range Rover bi fii la li fii la ci boppu koñ bi mhm. bi ñu yéegee ma ne ko moo daan mën bi du ñëwaat nga wax comme xam na ma moom de on était jeune ma koy naan je serai multimilliardaire mhm. bu ma amee ay milliards jaaxlu keroog dama ci juru ngénte dafa ñëw ma ne ko commencé gu ma hmm? mu ne ma ak li nga am ma ne ko billahi commencé gu ma je serai le premier africain wala le seul africain à avoir une compagnie d'Airbus dégg nga mu wala déggoo ma léegi ngeen dem ba ba wax baaxul quoi ñu dem léegi nag man bàyyi naa fa Range Rover bi ñëwaat nañu ci Cadillac bi ma jindeel sama jabar ñu ñëwaat ci Cadillac boobu le samedi j'ai travaillé xam nga samedi dimanche la lay liggéey bon je sais pas je crois que euh, euh, on a on a mais dafa amoon 4 avril comme du ma liggéey on a fait l'accident avril léegi on a quitté ici le trois avril bi ñu quitté 3 avril ci Cadillac bu bleu bi lañ dem beneen Cadillac mooy bi bi nga fekk ci buntu kër gi. ñu dem ndeysaan je me rappelle la ma meilleure amie bi desee ci kii bi bi ñu gaaree bi ma accepté waaw mu ne ma merci pour la bonne conduite wallaahi ndeysaan moo ma dugal ko néegam defal ko drap yu set c'est une femme que j'adore que j'adorais quoi bu set c'était ma meilleure amie ma ne la koo xam ne kay yaa ngi takk jabar nga may ko njëkkee kay xam nga ne c'est ton tout fleurs nekk ci kër gi moo ko defar mënuma sax wax ci moom parce que man demal naa ko umra à l'insu même de ses enfants ma njëkkee dem mag ko aussi tawaafal naa ko defal naa ko umra aussi comprend nga c'était même euh, publié bi ñu dee Touba ñu fanaan fa chauffeur bi gaañu moom ndeysaan dafa ñëw ne ma man xaw moom ndekete da doon da doon da doon euh, da doon kii papam neen da doon sukuraat ça fait un mois mu ne ma jàppale ma dafa ñëw indi dix mille soxla colopathie ma ne ko quinze mille rek muy dem mu ne ma jàll man ma tëdd guddi seetaan ma dama la bëgg gëm la mu ne ma jàppale ma te nit ñi fu ma egsi léegi nit ñi daw ma man xaw ma lii lan la fi ma doon liggéey sax mun ma am liggéey fa ma ne fooy liggéey mu ne ma dama doon yenn ciment sa ko sim ma ne ko xanaa ma métier mu ne am na permis sax waaye kenn du ma jël ma ko damal jël sa sax nga ñëw ji léegi léegi ma jël chauffeur nii la ñëwee dawaluma léegi bi ñu fi jógee nag le samedi soir moom moo yóbboon kangoo bi ma naroon may sam benn rakk mu ànd ak basum ñu yëg ci oto bi ma ne ko basum testal kii ndax mën na kuy dawal oto dëgg dama seetlu ko Touba. Hmm. Touba nga xam ne mën na dawal. effectivement ñu dem léegi ñun fanaan nañu tuubaa ba le lendemain man leen ñoom nañ ma jiitu. comme man dama gaaw ñoom mi jiitu comme kàngu lañ yor man euh, ranger ranger laa yor man non pas oto yi ma yor yëpp oto américaine la te man je je roule à 160 minimum avant l' accident quoi léegi kay moom 100 ans du ma foog <laughs> dem naa la xëy ñëwaat léegi. bi ñu yeewoo ma ne mais ban oto lañuy ñuy yóbbu kat nag bi wala range bi ñu ne nañu bi man fàtte naa range bi di barke Seydina Mohamed Xadija moom may dégg xam na ko Xadija sax moo ne range bi wala moom moo ne range bi j'ai oublié en tout kenn si ñoom ma ne kon yëpp bi leen bagage nekkoon ci Cadillac bu bleu bi ñu def ko ci range bi ñu dem ñu ngi dabi gars yi après Ranérou chauffeur yi ba léegi àggul sama dëkk parce que boobu maa ngi tabax résidence Xaadimu Rasuul sama sama sama dëkk hôtel Wurso yi foofu laa doon dal ma ne comme yaa ngi bori da doon bori ma ne ko dafa tàng fuuta desal ci climatisation bi ñu ñu àgg Kanel ñëwaat suñu hôtel ñëwaat damaat encore nekk foofu veillé benn benn grand artiste bu tudd Sadio Ahmed Ifra invité ñu reer ñu ñu reer këram ngi fa jógee trois heures une minute mhm. du matin ñu jëlluwaat Wourossogui moom ñu indi fekk yóbbul nañ ko reeram depuis vingt trois heures parce que Wourossogui Kanel c'est vingt deux kilomètres on peut aller faire des allers-retours bon moomu tane sax moom dafa tane woon sax le lendemain ñoom déposé ñu kàngoo bi mu ne dafa fàtte téléphone am ci kàngoo bi noonu laa ne xaaral ma dem jëlee la téléphone bi ak sa permis ci kàngoo bi léegi wàccatuma oto bi maa ko dawal ma dawal oto ranger bi ba daara mooy wàcc saw nekko ko yégal nga rey ñu. yow wax loolu xaw ma sax ni wax bi ñëwee c'était la première fois bu may dawal même pas dix minutes ñu accident. c'est pas bi noonu. non non non non entre Daara et Touba. waaw man moom côté Ranérou dama bàyyi kenn sax dama dawal may dawal parce que xam naa li nekk ci yoon boobu. Euh, euh, rien vu venir. xaw ma wala da nga jékki-jékki rek gis oto bi. tëf rek laa dëgg xaw ma je ne peux pas me rappeler de ça. tonneau 86,5 xam nga boo defee accident sa bopp dem ci deux semaines tu ne pas muusoo nekkatoo nit nga tiim ci ay néew et tout mhm. tu perds euh, deux individus. ndax nga dundee moment yooyu. je vais plus me rappeler franchement boobu ba léegi sama xel bi dafa wàññeeku. Mhm. mais forgé na la am na lu bari loo xamante ni. jàngat nga ko ci. bon ci sama borom parce que xamoon naa ne deewoon naa ba pare. Hmm. c'est devenu maintenant la renaissance damay naan maintenant je suis pour aider le le monde. moo tax boobu ba tey lu ma am dama koy maye. waaw sauf nag li may sama usine bi nekk extérieur moom boobu moom raffinerie moom kooku moom productivité bi ak lu muy jur kooku c'est c'est sommet bien mais fii lu ma liggéey presque dama koy maye. di ko tabaxal nit ñi di tabaxal nit ñi di voilà quoi. looy def ngir yàlla loolu dangay ngay noppi mais franchement su ma fay lekkee ci su ma ci lekkee fay ci sama courant fay ci sama ndox franchement nit ñi ñoo ko moom. moo la gën a marqué ci si patient yi nga mus a faj docteur koo xamante ni peut-être nit ñi demoon nañ ba amatuñ ci moom yaakaar ah, nga nga nga nga def ci ay kéemaan. bëri na. ban moo la ci gën a vraiment bëri na depuis Ziguinchor une fille par exemple qui ne se levait pas la woon sax une danseuse mais mu toog ma trois ans ou deux ans ci néeg léppam ci benn sur place la koy def actuellement mu ngi dox ci ay soxlam ça ça m'avait marqué xaw euh, ma dama wax euh, secret médical jàmbur. d'accord euh, yaay même loolu sax yaay même une fille là mën naa jox numéro am. fi mhm. fille Saracoulé là qui vient de kooku tamit man dama foon deux ans sax mais na cinq ans. cinq ans mun naa jox numéro am sax. direct ngeen woo ko cinq ans doxul. il est venu chez moi en moins de deux semaines la commencé à marcher yàlla xam na ko ça m'a marqué parce que une jeune sans compter franchement ñi nga xamante ne hépatite B bi daf leen attaqué woon ma sauvé leen. te yooyu yëpp man euh, li ma ci am amoon paralysé AVC paralysé faciale ma sauvé ñiy drépano ma sauvé leen wax dëgg yàlla am ñuy jógee France par exemple arthrose yàq leen wala polyarthrite rhumatoïde déforme seen yaram yëpp ma faj leen am na benn femme bu ne Italie kooku moom ujoom nit ñi dañ ko doon déglu sax ci ci ci réseau yi parce que da doon témoigner mu ne uli mooy sama secrétaire mu ne jàll neen du faj rein nel docteur day faj rein man hépatite B laa doon faj faju wér na mais sama rein wér na garabam yi ñoo ko ñoo ko faj comprendre nga ça m'a marqué des femmes yoo xam ne dañu toog 6 mois duñu génn te ñu dem tukki ba itali 6 mois duñu ci wàcc lal nga faj leen ñuy commencé di liggéey c'est touchant mm-hmm. euh, le professeur Noir Cissé de Ziguinchor kooku moom gis ngeen vidéo même ci YouTube yi de témoignage avec des jabet euh, bu bu ko sonaloon mm-hmm. ça m'a beaucoup touché ñi nga xamante ni dañuy dem pour opération de cœur en Tunisie ma faj leen fii waaw c'est que man li tubaab mënul faj lay faj. non man yow gis naa ni. j'ai jamais changé de prix six ans mosuma changé prix prostate daal moo nekkoon quarante mille yéegaat cinquante mille parce que <coughs> uutuma ci dara sama pap moo souffroon prostate mais gis na mu méttee. Hmm. ma mag te prostate mag lay dal. parce que à partir de 45 am mag nga mais pas yi ñoo ci gën a souffrir. Mhm. ma ne désormais ku mën a rembourser prix du garab bi dama lay faj. Mhm. ah boobu rek moo xaw a yokk tuuti. ak asthme asthme asthme asthme non non même asthme yokkul asthme 40 000 la. asthme tamit da nga koy faj mu jeex tàkk. non allergique yooyu sportif chronique yooyu yëpp da nga koy faj bi d' abord 15 000 nga jéew faj asthme bi 40 000. nga ni kon asthme nag. boo ko fajee en dehors de l'hivernage il se peut nga ñëwaat hivernage encore fajuwaat hmm. waaw moo moo tax li may gën bëgg mooy nga faj ko moment hivernage mais nag boo gisee ne sonal naa mu nga am crise nga dee ci ñëw rek cinquante cinq mille quinze mille ak quarante mille nga ñëw nga faj ko parce que tu as cinquante pour cent mu bañ ñëwaat ci hivernage bi mais tu as aussi cinquante pour cent mu ñëwaat ci hivernage bi hmm. suy wax que ni moom moo euh, moo gën a cher petrole moo gën a cher gaz boo waxee lii après ci ngay comprendre li taxoon mu doon wax loolu macha allah. kon donc mais y a des américains qui ont besoin de médicaments d'hépatite mais dama dama mënul am une tonne quand même je peux une tonne deux tonnes c'est des millions de dollars qu'on te donne am na ñu may proposer def garab bi en molécule mais man dama di ko xamante ne. kenn du ma guidé waaw loolu ñaan ma ko yàlla ñaan yàlla am salaire ñaan yàlla am patron buñ ma woon ñool nekk ministre de la santé duma ko nangu. lu tax parce que boobaa dama am patron. mu lay digal suis pas né pour être dirigé. il n'est pas né pour diriger donc mbokk internet yi gis ngeen euh, docteur Diallo la ñu toogaloon. mu nekk un plaisir vraiment de partager un plateau avec vous ndax euh, nit bu yoo mel ni yow comme ni nga ko waxee yombul ci réew mi donc état bi war nañ la mën a seet si ñi nga xamante ni nag euh, ñoo nekk bitim réew aussi jarul ñuy wax mën na leen seet si ndax euh, appel yi moom day day day bitim réew moom ñun bitim réew sax la ñuy ëpp lu ñu gën bëri la mm-hmm. waaw bitim dañuy jaar ci secrétariat bi ñu wax seen jàngoro secrétaire bi dina leen fajoo mm-hmm. mais nag du ñu yónni kenn garab. et puis du ñu du du ma nangu ngeen yónni seen xaalis secrétaire bi wala benn numéro ci bureau bi kooku duma ko nangu seen mbokk ngeen di yónni. ki nga wóolu mooy ñëw mën na bañ xam feebar bi. parce que wax nga ko déjà secrétaire bu ñëwee bu waxee sa tur rek xam nañu ban garab lañ koy jox. ak montant moom montant bi da nga koy jox mu fayal la jëlal sa garab. ñu expliquer la désormais sax ñi nekk extérieur exiger ñu expliquer leen mode d'emploi bi par le numéro du bureau les deux numéros du bureau 203 004 bi ak 959 28 09 bi 77 959 28 09 ak 77 203 08 04 parce que amoon naa benn employé bu tudd Ismaël da doon triander euh, patients yi te da doon joxe sax numéro am direct di def ak ñoom deal xam nga hépatite nga war a faj nga war a fay sa sangaani mi nga fay ko sangaani mi mu dem utal la beneen garab hmm. te moom sax du xam sax ban garab la jël moom l' essentiel daal la dugal sangaani mi ci poche waaw moo tax voilà bon nii la mës a sax mais c' bon de le rappeler aux gens. d' important de toute façon numéro bi dina jàll au bas de l' pour euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy monter vidéo yi suñu euh, techniciens yu xarañ yooyu mais docteur euh, amoon nañ mbégte vraiment kontaan ma toog ak yow. vraiment waaw kontaan nañ trop. di la bàyyi rek nga tàggatoog mbokk internet yi parce que dañuy ñëwaat defaat yeneen numéro ci yeneen jamono ndax di toog yow di waxtaan dina amal njariñ askan wi nga xamante ne ñoom ñooy toog di seetaan parce que lii lañ war di wane ñi nga xamante ni eh, eh, ils sont utiles à la population ils sont utiles aux Sénégalais loolu ñooñ lañ war a seeti di waxtaan ak ñoom donc toujours rek dañuy am contentement di déplacé wu di ñëw ba sa kër euh, toog ak waxtaan ak yow pour askan wi mën a gindiku pour askan bi mën a faj seen soxla mm-hmm. donc dañ lay bàyyi nga tàggatoog mbokk internet yi ñu joxante rendez-vous prochainement ak beneen numéro. non tàggatoo bi c'est juste xam naa dina may nit yu poser question où est-ce qu'on est ñu ngi Petit Mbao samedi dimanche ak lundi samedi dimanche lundi la ñuy liggéey huit heures quatorze heures. Petit Mbao entre Petit Mbao moom entre moom kalandoo boo jël nga ne kër docteur ci mango yi ngeen jëlee y a un autre Diallo nag mais kooku bokkuñ sa médecine voilà euh, mardi après midi yi ñu ngi Touba après midi nag laa wax à partir de 15 heures bu kenn ñëw suba boo fa boo ñëw du ma la ubbi doomo sax fekk amul añ awma añ foofu donc ku nekk na añ ba pare doog ñëw 15 heures la ñuy commencé Touba. waaw bon foofu par exemple waa Diourbel waa Kaolack waa Gambie foofu la ñuy ñëwee. Hmm. waa waa Kébémer waaw surtout waa aussi Saint-Louis dañuy bëri foofu les mardis hmm. Mauritanie aussi gars yi dañuy bëri foofu bëri bëri Touba surtout Gambie aussi hmm. donc c'est juste ça. merci beaucoup donc docteur la ñu docteur Diallo la ñu toogaloon tey def moom waxtaan bu am solo dégg ngeen révélation yi nga xamante ni def na ko par rapport ak li nga xamante ni moom mooy weeru koor ni mu koy ni muy dimbalee ni nga xam ñoom ñooy jaam ñi ñi nga xamante ni eh, non dañuy rafetal rek ixsaanal <laughs> ni muy dimbalee gars yi parce que tamit am na système boo xamante ni moom lay doxalee weeru koor faj gi nga xamante ni moom lay faj façon feebar yoo xamante ni ñu si bari tubaab bi mënuñu ko faj mu ni moom da koy faj donc numéro baa ngi noonu di jàll au bas de l'écran vous pouvez l'appeler directement que ça soit appel téléphonique wala WhatsApp je pense que loolu lépp ñoom préparé nañ ko c'était un plaisir vraiment ñu toog ak moom te xam naa dañuy ñëwaat beneen bés defaat ak moom beneen jotaay ndax sénégalais yi soxla nañ li trop feebar yi bari na stress bi bari na ñàkk gi bari na te sànq di nga ko ci ay waxam mu ni day sang nit sax pour mu am ay koppar donc daal c'est la solution euh, monsieur Diallo la solution laa ko tuddee mën ngeen woote ci numéro boobu euh, donc c'était votre humble serviteur Petit Gallo Sow di la jox rendez-vous très ah, bientôt ak beneen ak beneen numéro jërë ngeen jëf